ñuy am saa su nekk di ànd di leen dëkkal lépp loo xam ne moom moo di xibaar yu tukkee ci biir réew mi ba ci sax ca bitim réew ku ne xam ne ne jamono ji ci làngu politique ak li la di élection locale yi ñu weesu am na ci ñoo xam ne ba tey kenn xamaguñ fu ñu féete maam góor jazak moom ci la bokk mu mel ni fa mu tegoon tànkam ba léegi teggiw ko ki di laaj yooyu le résultats nee na ca Tëngéej moom moo ko gagné te du nangu kenn di ko xañ boobu lépp victoire mu mel ni ba mu ca jógee daal dinay féliciter Ousmane Sonko. Ahmed Aidara ak kile di euh, Barthélémy Diaz kàdduy Mame Gor Diazaka dafay firnde rek ne moom jamono ji dal dinay euh, nangul ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Yewwi Askan Wi ku sañu te bañ saña nangu Mame Gor Diazaka ginnaaw bu mu euh, demee tey ci plateau bu nga xam ne moom moo di plateau bu Seneweb di bët set daal dina fay andi ay leeral mu mel ni dafay insiste rek ci li nga xam ne moom moo di yooyu les résultats nee na Tëngéej moom moo fa gagné yëf yi dafa am lu laxasu ci bàyyi mu sedd nañu ko jox li nga xam ne euh, victoire am mbokk yi xarit yi lii lañ leen doon datanal la ci xibaar yi biir mi abonné leen activer seeni cloche de notification ngir en a am suñu vidéo à temps réel